salaamaaleykum mbokk yi bégal xaas TV maa ngi leen di nuy bu baax a baax jox leen seen wàccuwaay ak nga xam ne nag moom laa àndatil moom moo di Dabakh Malick eh, Dabakh nag tey ñi ngi fi nga xam ne moom moo di Kër Massar ndax Kër Massar yàlla dogal na ba bari na ay cas bari na tam am na tam benn moor boo xamante ne ni jot nañ ko am alors tey li ñuy waxtaanee nag moom moo di wàllum takk masque yi ndax ku nekk xam na ne masque yi c'est obligatoirement pour ñu takk ko léegi ñu koo forcer léegi nag ñoom dama leen laaj ndax ñi ngi force li nga xamante ne nii moom moo di masque yi ñu ngi koy takk Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna maa ngi ci bu baax a baax a baax. na ngeen def ak Kër Massar ak li nga xam ne moom moo di Covid 19 bi. waaw Covid 19 bi de fu mu nekk nii cas yi ñoo ko déggandoo ndax bëri nañu trop. waaw instant bi gendarme yi ñu ngi exiger masque. Mhm. kuy doxandu si rond point bi da ngay takk masque sinon dañ lay arrêté. Mhm. ñu fay loola taxe 15000. Mhm. waaw bi ngeen déggee ne am ngeen benn moor naka ngeen réagir. ah dañoo gën wax dëgg yàlla ndax ba feebar bi dugg see fii ñu dañoo tiit ndax Kër ma Massar dafa populaire waaw ba feebar ba moor bi ba ñu déggee moor bi nag dañoo gën a tiit rek di gën a bàyyi suñu xel tamit waaw nekkoon ci lu ñu nekk rek bu ñu defoon fukk def ñe ñeent fukk waaw ci loolu lañ nekk nii. alors léegi nag lan ngay wax sa mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii Kër Massar. ah maa ngi leen di wax bu ñu bàyyi rek xam ne affaire yi métti na torop ndax gis nga benn business doxul ñun ci maquette bi lañ nekk fii nii mais benn business doxul loo crédit sax laa bëgg nii koo am waaw maa ngi leen wax bu ñu bàyyi tamit quoi. waaw léegi nag itam Kër Massar da fees dell heure 17h bi jàpp 19h bi instant yi yéen ñi nga xam ne fi ngeen dëkk est-ce que gis ngeen ni loolu wàññeeku na carrément. waaw waaw bien sûr wàññeeku na bu baax a baax a baax parce que euh, d'ici 19h dootoo gisati kenn dox fii nii waaw. merci beaucoup d'ici waaw jaajëf. Aja Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu ngi lay ziar bu wér. ñu ngi lay ziar yow tamit. maa yaa ngi respecté masque yi. maa ngi koy respecté gisoo léegi léegi laa jënd maa ngi doon dugg si poste pour retirer xaalis mais dama ñëw jël si bunt bi euh, lu yéeme parce que kuy dugg da ngay raxasu. Mhm. waaw booy génn nga laal sa gel foofu laa jël jëndee 4 max affaire yooyu noonu waa gaa yaa ngi koy respecté bu baax. Mhm. Euh, bi ñu li nga xam ne moom moo di takku masque alors lan ngay conseillé waa Kër Massar. waaw maa ngi conseillé waa Kër Massar ku nekk ngir lillaahi wa rasuuli na nga jënd masque waaw bul sa jënd benn masque ku nekk na jënd plus de cinq masques denc mhm. parce que kenn xamul quoi xamuñu mbaa day manqué affaire yooyu noonu puisque léegi ku nekk mun na takk masque tissu bii nii léegi lii mooy moins cher ngir yàlla que chacun porte. son masque pour euh, aider la population parce que instant gis nga station Kër Massar da fi ñu bëri parce que ñuy circuler rek nga fiy gis comme sama genre man instant yi maa ngi dem Dakar moo tax ma woo sama booy bi parce que daa lu mu fay jënd mais bu woon loolu pour ma génn fii nga gis ma station non non du gaaw de. parce que fii di alentour bi nii rek lu fiy ñëw. mu jéggi na dayo moo tax euh, Kër Massar moom ba ba ko monsieur le maire fermé ba léegi moom alhamdulilah parce que bu ko def lu woon rek euh, mooy loolu parce que gis nga temps yi rek Kër Massar ba mu duggee fer ba fi duggee rek affaire baa ngi gën a ravagé temps yaa ngi gis cas communautaire affaire yooyu noonu te kenn xamul kenn ah, yi moom doy na waar doy na parce que ñu ngi gis kaay mu ngi gën a grave Kër te xam nga Kër Massar dafa peuplé euh, ñëpp ngi fi donc lu ñuy war a def daal mooy na ñëpp takk masque comme ni ñu ko waxee wàññi wàññi demlante bi dikkalante bi lu lay yëkkati na doon soxla bu sa soxla jeexee nga ñibbi sa biir kër loolu daal laa gis tamit station bi daan fees dell mais dem nañ ba benn moment instant yi gisatoo fu kenn mu mel ni seen maire bi moom tam jël na ay matuwaay yu wér waaw maire bi sax da koy yéex a def parce que lii moom Kër Massar ñëpp xam nañ station bi dafa ni mu mel donc lii même bu corona bi jeexee sax dañ ci war a veiller même bu ñu mënul euh, nañ nañu gën a xoolaat daal station Kër Massar parce que dafa metti fii dafa metti daal. gis nañ ni tamit yéen macha kenn ëppalewu leen ay cas fii ci Kër Massar est que kon ñi fi dëkk ñi ngi jël ay matuwaay yu wër. ah ñi fi dëkk moom mënu wax ñëpp a jël seen matuwaay mais man dama part personnel suñu koñ macha allah ñëpp a ngi jël seen seen matuwaay boo génnee boo ñibbisee ba la première chose à faire da ngay raxasu booy génn da ngay takk sa masque d'ailleurs gis nga sama doom ji sax dama ko takkal masque xam nga moo gën daal soxla yëkkati la boo paree yaa sa biir kër ban conseil ngay jox jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër yi war a mën a gën a set parce que affaire bi lu salte bañ waa set moom jigéen même bu du corona sax dañoo war a set donc ñu nekk ci waañ bi dañuy gën a raxas dañuy jegeel eau de javel bi ndox mi na bari xam nga surtout ñu ngi jëm ci koor gi nañu lekk lekkin bu baax bu set bu ko defee incha allah moom corona bi léegi mu jógee fi ñun moom dëkkuñu fi quoi ñu ngi dëkk euh, Alouba Niakh quoi Daaru Salaam 6 mais dañuy jaar fii di liggéey quoi jaxaay laay xëy peintre laay def quoi mais nag yoon bi moom gis nañu gars yi ni ko taxawee gendarme yaa ngi fi ñu ngi koy toppatoo mais nag man benn affaire rek laay wax biir oto yi ñu ngi koy gérer mais problème bi ñu koy gérer mais oto yi est-ce que gars yi dinañ ko désinfecté est-ce que dinañ ko désinfecté loolu laay wax parce que tamit dangay wàcc si oto ñëw suba nga ñëw bëgg a duggaat si oto booy duggaat biir oto boobu xamoo ba xam oto boobu désinfecté nañ ko wala désinfecté wu ko nga ñëw xam nga dugg si biir oto bi toog wéeru si photo yi ak tàngoor boobu noonu est-ce que wóor na mais am na yenn disposition yoo xamante ne boo ko xasee jël baax na mais am na leneen loo xamante ne mu ngi si biir tamit mais mun nañ fay fekk jàngoro mais nañuy désinfecté seen oto yi ñu koy dugal kii di ko désinfecté mais dañ koy wax nii rek mais est ce mu ngi am loolu tamit dafa jara sóoraale dafa jara sóoraale mais ñun ñu ngi protégé wu gis nga man sama hydroalcoolique mu nii sam poos fa nekk su ma jëndee dara sax balaa ma koy suma ma ko laalee ba pare dinaa jël hydroalcoolique bi laal ko maa ngi ak sama masque mais oto yi ngay dugg est-ce que doo fa fekk dara même bu nit ñëpp amul dara oto bi nit mun na fa wàcc démb am lu mu fa bàyyi comprendre nga mais oto yi nañ koy désinfecté comprendre nga lool mooy affaire mais leneen li ci des li jëm ci ay affaire ceeb ak yooyu ñun fekk nañu ñuy dund fekk nañu ñuy yor suñu bopp loolu lañu fekk suñu papa yi te ñun tamit ci loolu la ñuy dox xam nga ñu ngi ci yoon boobu di di waar comme ni nit ñi di waaree comme ni gouvernement bi di waare mais problème bi mooy li nga xamante ne mooy aar nit ñi nañu nañu commencé si suuf jëm si kaw parce que tamit si biir oto yi la war a commencé soo ko génn si nit ñi tamit parce que nit ñi ñu ñàkk bañ a dugg si biir oto yi comprendre man loolu rek laa doon wax quoi. fi nga jaayee ci rond point Kër Massar te wàññi nañ ñi nga xam ne moom moo di dugg lante ak génnlante bi naka la def ci sa côté. non man noonu damay moytu quoi damay takk sama masque su ma ñëwee damay moytu di raxasoo maanaam samay samay samay sel quoi waaw ma jox loxo kenn damay ñëw su ma ñëwee. liggéey sama liggéey sama wàcc après ñibbi quoi su ma yeggee sama kër tamit damay raxasu quoi waaw. nga nekk fii Kër Massar di fi liggéeyee dëkk yëmbal nga waa Kër benn dese loolu noo ko gisee. ah noo gën a moytu rek xam nga affaire yi moom boo toogoon sa kër bu la waree dal da lay dal man loolu laa gëm man vraiment personnel man su ma Touba gi ni sax Touba laa dëkk di fi liggéeyee waaye affaire yi bu la waree dal da lay dal rek man loolu laa gëm quoi bu la waree dal da lay dal rek boo toogoon sa kër sax man na la dal waaye rek dañuy sawlu maam di moytu quoi waaw dañuy moytu bu baax a baax a baax. alors ban matuwaay a jël pour affaire bi gën a wàññeeku. ah waa état bi moom leen rek leen mën a jël muy ay mesures yoo xam ne buñ toogee suñ kër ñu jox ñu luñ toogee suñ kër yi waaye koo xam ne moom day génn maanaam te ñun ay xale lañ waaye ñu yaakaar ñun dafa bari kon buñ toogee rek après solution man du am solution bari mënu am sax pour man ñu ko waaye comme defuñu taxale ji suñ ñëwee mën a jox suñu waajur quoi waaw comme ni nga ko gisee nii Kër Massar moom actuellement ñu ngi commencé parce que depuis bu ministre bu waxee na gars yi sol max képp ku génn da nga war a sol max en plus soo duggee si oto yi aussi da sol max soo ko deful dañ lay daan moo tax ñu ngi ñu ngi ñu ngi def loolu bu baax baax di sol max si. waaw loolu c'est normal parce que Kër Massar dafa nekk euh, si banlieue bi te nit ñi dañuy demalante dugalante xam nga nit ñi tooguñu dañuy circuler bu baax te marché bi gisoo nu mu mel fii nii fii da fii sax tane na temps yi mais da fi doon ñëw da fi fekk nit ñu bëri. léegi loolu rek mun na exploser kaay yi surtout cas communautaire yi quoi te ka communautaire ñoo gën a dangereux ndaxte nit ñi xamuñu danga nga koy yor euh, nga nekk ak moom te xamoo ba xam yow dëgg-dëgg yaa ngi yaa ngi cas communautaire moo tax loolu daal moom moo tax affaire yi gën a exploser nii si Kër Massar quoi. am ngeen benn dese yéen waa Kër Massar loolu naka la la def. waaw loolu bu mu ko déggee vraiment tiis bu tiis tiis bu mag la nekkul Kër Massar kese mais sénégalais xam nga sénégalais bu décédé rek. mu ngi mel ne ñëpp ko yëg parce que Sénégal yëpp ay mbokk lañ moo tax dañuy ñaan yàlla daal euh, dese yooyu euh, commencé arrêté wala mu wàññeeku daal parce que lii nii moom suñ jëlul matuwaay yaakaar naa affaire yi dina gën a garaaw moo tax actuellement ñi ñi war nañu góorgóorlu bu baax ba dispositif yi nga xamante ne moom la état joxe ñi daal di ko respecté su ko defee euh, ñi mën a mucc si jàngoro bii nii di Covid 19. attaque naa a max de fagaru rek. donc dëkk bi moom temps moom dafa doy waar nañ góorgóorlu rek ci lii xëy na dina wàññi affaire yi quoi man noonu laa ko gisee. gis nañ tamit fii Kër Massar bari nañ trop ay cas loolu noo ko gisee. waaw cas mooy maanaam comme ni nga ko waxee rek gars yi si boobu dañoo dëgër bopp parce que gis nga nit euh, bu nu joxee benn degré ñu ne ñun ñëpp sal kaf fagalu di jël jël di raxatu dina wàññi affaire yu bëri mais boo degré bopp moom ah, ah, affaire bi daal di lay dal rek ah, affaire noonu la demee rek. te daanaka fii ci Kër Massar bokk na ci eh, gox yi nga xamante ne nii bari na torop ay cas yéen ñi nga xamante ne nii fi ngeen dëkk yan matuwaay ngeen jël. waaw xanaa koy man noo ko gisee maanaam toog sa kër rek waaw toog sa kër fagaru du oo njawat gi di waxtaan ak ñoom xam nga ñu wàññi génn génn bi génn bi wër bëree bi ak dajaloo bi tamit parce que dajaloo bi tamit mun na indi ne parce que booy boo leen dajaloo ngeen toog di naan seen ataaya ngeen bokk kaas yi kaas yi sax surtout kaas yi tamit kaas yi mun na indi affaire yi donc euh, nañ fagaru daal fagaru daal moo gën lépp waa